que euh, waa régie tey Babacar Karajo Diagne moom fa nekk sunu ñawkat bar first class fii ci euh, euh, Castor ak Liberté cinq moom tamit delloo ko njukkal Nina Penda Faye ñu ngi lay nuyu di la daal la ziar. di nuyu ak de ziar téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp ak fépp fu ñu mënti nekk ci Sénégal nuyu naataango yi ak gan yi di nuyu waa Njagañaaw. aywa waa Ndiaganiao waa Caajaay euh, sama wóolëree Pape Djibi Fall moom it euh, di ko di ko nuyu aywa euh, Ajara gis dégg nañ gis nañ élément bi day wax si wàllum jigéen ñi ak wàllum politique ak wàllum pouvoir tey élection yii di ñëw benn jigéen naru say bokk benn jigéen euh, nekku si mën nañu wax ni que sax euh, ñetti jigéen yooyu ñi nga xamante ni ñoom ñoom lañ euh, recalé moom mooy Aïssata Tall Sall ki nga xamante ni moom mooy Amsatou Sow Sidibé ak ki nga xamante ni moom mooy Aïda Mbodj donc pour joxe rek statistiquement ñoom si lan lañ leen non non trois rek la donc si lan lañ leen daal di recalé mën nañ wax que ni ki nga xamante ni moom mooy Aïssata Tall Sall moom jotoon na am 56 138 signatures waaye li ñu ci jot a retenir 10 129 rek la contre 46 009 donc 46 euh, 009 yooyu nag dañ na ay autres motifs lañ donc bu ñuy wax waxu également statistique dinañ dem euh, wax ki nga xamante ni moom mooy euh, Aïda Mbodj nga xamante ni moom maire la woon fii ci Bambey donc moom tamit mu am statistique lu toll si 64 479 signatures waaye 50 799 rek moom lañ retenir ki nga xamante ni moom mooy Amsatou Sow Sidibé moom dañ ne ko rek claim bi mu andi moom moo nekk loo xamante ni mën nañ ko jëfandikoo pour mën a euh, daal di saytu xam euh, lan moom moo tax euh, lan mooy signature yeeg loolu na pour mën ko vérifier donc moom déjà mais mais Adjara est nañu wax ne euh, dafa am benn plan bu ñu tëraloon ne jigéen du bokk ci déjà euh, wax nañ ko ci ci parité bi que ni euh, depuis boobu ba léegi gis nañ ni que sax kii Amsatou Sow Sidibé jotoon na nekk en 2012 candidate gis nañ Diouma Dieng Diakhaté également jigéen joxoon nañ ko bu baax bopp ba ñoom ñoo sax daal day allié wu daal day jàppale le président Macky Sall mais je ne pense pas que ni loolu motif la le plan bi nga xamante ni moom la mooy ni moom mooy système de parrainage bi. bi ñoom ils l'ont pas euh, pris du style comme si euh, dafa nekk loo xamante ni da leen di wàcce wala lu ni mel mais y a aussi une réalité au Sénégal c'est que ni euh, tey question bi gën a mag mooy est-ce que Sénégal tey prêt na pour daal day jiital jigéen ci suñu réew y a des enjeu wax nañ ko socioculturel également suñu njiit yeeg lu ñu mel donc mu nekk mu nekkoon ab débat euh, temps yi yëpp ñu ñu ngi ciy waxtaanee mais ce qu'il faut retenir c'est que euh, jigéen ñi Sénégal yi c'est pas la première fois que ñuy am ay ay wala euh, ñu leen di hissé di gis nañ ko ci temps colonial bi ak li nga xamante ni moom mooy résistance bi nga xamante ni femmes yi amoon nañ ko dugal seen bopp bu baax ci li nga xamante ni moom mooy politique du Sénégal donc je nekk au en arrière-plan comme on le dit puisque devant chaque grand homme il y a une grande dame. Euh, Daouda euh, di la nuyu di la ziar yow euh, sa xam-xam dafa màcc si fànn yooyu maanaam wàllum góor ak jigéen nan la ñuy fexe ba seeni mbir nu muy doxee ci biir askan wi ñu ngi lay nuyu la ziar. maa ngi leen di nuyu di leen ziar. di ziar waaye sama xarit Nina. Nina Penda Daouda Diop yow fan nga jaar ba sa xam-xam màcc si loolu. waaw fi ma jaar xëy na su ma ko bëggee relater day yàggal sa émission alors que on est focaliser sur les questions de l'actualité. fii nag dañoo bëgg di wax légitimité ban légitimité nga am. <laughs> waaw kay la légitimité bi ma am mooy que dama mos yàgg na tu peux remonter à une quarantaine d'années peut-être boobu ba léegi maa ngi impliqué wu avec capacité de vérification eh li ma lay wax nii sur les luttes. pour l'égalité entre les hommes et les femmes. da nga bokk say kuréel yu koy def wala. c'est-à-dire avant même may bokk ci kuréel bu koy def j'étais membre de ce qu'on appelait le mouvement culturel patriotique sénégalais et dans ce mouvement culturel patriotique ak li muy wax culturel patriotique yëpp c'était un mouvement qui était très anti-femme en réalité. Mmh. comme les mouvements les plus droitiers. Mmh. mais man dedans je faisais tout pour que les intérêts des femmes soient défendus et que de mise pour les femmes soient là où les hommes sont. avec les mêmes préogatives et les mêmes capacités. ba yow meloon man sama étudiant yi nee nañ monsieur Tunkara féministe la. Ah, parce que nee nañ man damay faral jigéen ñi mais euh, léegi euh, tey euh, élément bi yow xool nga ko. xool naa ko ban dégg nga li Ajara wax dégg nañ li kilifa yooyu yëpp wax ban jàngat nga siy def. waaw damay d'accord ak Ajara ci lu bari lu mu wax mënuma ko gis comme un plan. pour écarter les femmes non. ça c'est pas ma vision ouais. du tout et c'est une vision trop simpliste et puis loolu du Sénégal waaw c'est trop simpliste xam nga il faut éviter les choses trop simplistes là en fait c'est pour se faire bonne conscience la réalité mooy que c'est le système de parrainage bi ñu mettre en avant et qui a été mis en avant très tardivement mmh. alors que les femmes généralement en politique ne sont pas toujours aussi préparées que les hommes pour demander quelque chose elles sont préparées pour soutenir quelque chose mais pas pour demander. Mmh. femme la femme day jàppale càmmiñam. day jàppale frère day jàppale papam mais elle ne se jàppale pas elle su suñu xoolee bu baax femme bi du jàppale boppam. ba xam ne elle fait élire mais ne se fait pas élire il faut changer cette tendance pour que mu dem ci esprit femme yi même seen bopp dañ naan kii sama moroomu jigéen la parce que dañ leen éduquer. on les divise même nous les hommes sur ça kii jigéen comme yow la mu naan moo lay diriger foo ko wekk. et puis dañuy wujjante. waaw même bu hommes yi dañuy wujjante mais hommes yi dañuy wujjante mais combine yi ñuy def par exemple quand je moi j'ai la clandestinité et j'ai conseillé des femmes ni leen su ngeen demee da ngeen di ñefe ngeen gisee entre yéen comme ni góor ñi def parce que dañuy def clandestinement entre ñoom jàppaay affaire ñëw diviser leen. mani femmes su ngeen ko defee vous allez gagner ñu def ko y en a qui sont devenus président d'AEC te benn formation laa leen defal rek avec Enda Mouniaye boobu mu tudd gu 3D donc xamuñu combine yooyu yu ci bare on les utilise nag dans ces combines mais ce n'est pas c'est le parrainage tardif parce que on l'a vraiment adopté tardivement. mais c'était tardif pour tout le monde te ñii ñu recalé tey Aïssatou euh, Aïssata Tall Sall. Euh, euh, Amsatou Sow ay Aïda Mbodj ñooñu yàgg nañ si politique maanaam seen xam-xam màcc na. non non seen xam-xam màcc na ci politique mais comme je te dis. les femmes seen xam-xam dafa match ci politique dans le sens du soutien. Ah. Ah. soo ko xoolee ba temps wu même ay temps wu la. mais c'est pas le cas de ñii de. si c'est pas le cas de ñii ñoom ay par exemple Amsatou Sow Sidibé moom elle a moom elle était candidate moom c'est la première femme agrégée d'Afrique. kooku xam nga du du du du soutien lay dox. waaw mais xam nga a wax. c'est une femme leader, je pense pas je pense pas. je je ne je n'agrée pas tellement l'analyse bi nga def. Mhm. Amsatou Sow Sidibé ne s'est pas imposé. sur le plan national et posé sur le plan national comme benn leader d'envergure nationale. alors que elle était candidate. Euh, elle était candidate. xam nga avant était xam nga. même Ross Perot aux États-Unis a été xam nga nu mu tudd a été candidat. waaw ba au niveau national. Ouais. pour deux cent quarante millions de d'électeurs xam nga. mais taxul mu nekk leader national connu ba il a eu un pourcentage très faible parce que loolu ça nécessite un travail en amont. que je ne suis pas convaincu que Amsatou l'a mené su ko mënee woon. Mhm. peut mu arrivé feneen parce que quand tu l'entends parler elle séduit. oui et communication il la séduction dedans. mais mais mais euh, Daouda Diop ñeneen ñaar ñi c'est des vraies femmes leaders ay maires lañ. déjà kii Bambey kii Podor. weddiwuma ko et Aïssata Tall s'est battue à Podor pour être maire parce que quand même on peut dire que l'APR ne voulait pas. et on a même monté quelqu'un qui est Podor qui est si tu veux euh, implication sociale bi mu am foofu je pense que dana jouer waale un peu ainsi de suite mais je ne pense pas du tout que mu jox boppam une envergure nationale. Ah, aussi ah avec euh, non xam nga qu'est-ce que je veux dire. et puis qui a été dans le mouvement étudiant. Oui. dans le mouvement social. parce député c'est national quand même. mais xam nga député moom au Sénégal tout le monde sait que député le c'est le député du président. puisque la majorité des députés c'est plus le député du président que le député de moom en tant que ni mu impliqué donc je ne pense pas du président je ne pense pas du tout que Aïssata Tall Sall ait eu cette prégnance dans la société civile ba mu étudiante affaire yooyu ba nga xam ne dafa am un parcours qui lui permet de marquer tellement que soo ko fàttali ko rek hmm. ni ah Aïssata bi xamoon naa université wala xamoon naa mouvement wala nga am ay nit ñu ànd ak yow ñu am dans ce sens. ça ñun nag amuñu problème leadership féminin ci réew mi parce que tey fii bon am nañ fi premier ministre yoo xam ne jigéen lañ am nañ fi ñaar. Euh, tey booy booy liggéey fenn jigéen di la jiite ñun Sénégal ñun amuñu problème ay jigéen du ma jiite. Euh, MLK. bon man euh, en fait d'abord mel ni man man mun ma am problème parce que man sama yaay moom moo ñu yar te. ñu nga doon jaar par hmm. force. bon euh, d'abord man euh, dama koy dama koy féliciter parce que. ñu mel ni moom la ñuy woowee góoru mbootaay xam nga Sénégal boo waxee nit ne góoru mbootaay la ils ont tendance à penser que c'est péjoratif non c'est pas péjoratif parce que li muy def mooy góoru mbootaay mooy góor gi nga xam ne dafay xelal jigéen yi di leen di jàppale di leen di puus ngir ñu dem mais euh, am na fu ma àndul ci analyse parce que su fekkente ni nee na Aïssata Tall Sall ak euh, ay da Mbodj ak euh, am Amsatou Sow Sidibé Aïssata Tall Sall ah ak am sa Amsatou Sow Sidibé euh, defuñu li tax ñu war a jàll ça veut ko kon du société bi moo parewul ngir fal ay jigéen mais jigéen ñi ñoo parewul ngir falu hmm. parce que euh, en tout cas pour ce qui est d'Aïssata Tall Sall man je pense que def na li war parce que wër na réew mi amoon na tournée bu mu doon amal euh, Oser l'avenir mooy mouvement bi nga xam ne ci bannière boobu la la la déposé candidature am. ci la amee député ci la amee député ci la demee def tournée nationale. mais proportionnellement bu ñu recaler trois jigéen ñaata góor la ñu recaler. plusieurs. donc proportionnellement c'est acceptable. Mmh. maintenant mën nañu wax ci failles yi nga xam ne moo am ci système parrainage. une loi qui a été hâtée maanaam dañu ci yàkkamti euh, concept euh, conceptualisation bi jaarul yoon dañu ko parax paraxe loolu yëpp mën nañu expliquer li nga xam ne. Euh, lu am solo parce que beneen Maodo Lamine Ka pour dëggal li nga wax nii. affaire parrainage yi dafa laajoon de gros moyens. tout à ñëpp amuñu ko woon. absolument Nina. parfaitement si argument boobu ngay wax laay njëkk dellu si mais aussi euh, si li doyen Daouda Diop wax par rapport ak li nga xamante ne mooy li ñu ni ñu waroon a préparé wu am na lu des. Mhm. mooy euh, professeur dañuy seet ni boo waxee professeur Amsatou Sow Sidibé notoriété bi mu am à l'étranger mhm. notoriété boobu. xëy na moo ko yëkkati mu nekk femme leader bi mu nekk mais bu ñu seetee ne professeur Amsatou Sow Sidibé a été membre du gouvernement du président de de de Macky Sall elle a accompagné la coalition ba benn moment mu génn ça c'est un facteur boo xam ne il faut l'intégrer dans l'analyse mm-hmm. parce que sénégalais yi tamit bu ñu lay tànn di la tabb wala di la jox seen kàddu mm-hmm. dafa am ci condition yu ñu koy teg mm-hmm. ça ça peut être un élément boo xam ne danga koy intégrer ci analyse loo xam daf ko daf ko gaañ quoi daf ko loolu lu ko gaañ ci li nga xam ne ci parrainage bi ci lay bokk mm-hmm. beneen bi mooy doublon yi parce que am na ñoo xam nga am na yu bëri ajara dafa ne yu bëri dañu ne Euh, euh, autre motif. autre motif autre lu nekk ma ngi mi ngi ci biir ëmb na lu ne. autre lu ne mën nga ko ci dugal. c'est un fourre-tout en fait où tu mais l'autre chose aussi li ñuy wax mooy cursus bi nga xamante ne moom la suñu femme li ñuy jëkk ci Sénégal rek gis benn jigéen bu génn ñuy laaj fan la jaar. lan mooy euh, démarche parti bi est-ce que nekk na koo xamante ne dafa militer à la base comme ni ko suñu euh, kii invité bi nga xamante ni y a quelque temps euh, la députée l'ancien député du parti socialiste qui est j'oublie son nom ça va me revenir bi doon wax ne moom dafa nekk xale di militer parti socialiste Aminata Diallo merci di militer ba fii mu toll mais ñoom dafa am fu ñu jóge dañ leen jëlee ci kaw ñu dugg comparé à Aïda Mbodj parce que Aïda Mbodj boo seetee moom boo seetee moom cursus politique am. Hmm. bokkul ak ci seen. PS PDS bokkul. Hmm. Aïssata Tall beneen cas la parce que dafa wax Podor elle maire mais Podor gis nañ ne elle a déployé beaucoup d'énergie pour mu mën a euh, remporter le la la bataille de la mairie. Hmm. benn deuxième chose aussi. dem nañu ba men moment boo xamante ne professeur xamuñu woon ndax Aïssata Tall Sall day ànd ak Khalifa Sall. Mhm. wala day demal boppam. le fait qu'elle ait à s'afficher à dire exactement où est-ce qu'elle veut aller et à quel moment elle a le moment où elle a décidé d'y aller ou de ne pas y aller loolu tamit dafa impacté ci li nga xamante ne moom mooy ni ñu ko waroon a soutenir te élément yooyu professeur buñ ko intégré wul rek. dafay am lu bëri lu ñuy la ci parrainage mun na ah bañ nekk forcément un problème de leadership ah mais le fait qu'ils aient tardé ou qu'elles aient tardé à rentrer dans le jeu comparé aux autres qui ont pris tout le temps le professeur bu ñuy seetee cas président Macky Sall dafa jël trois ans fàtte Wade def yëfi boppam dem campagne dugg Sénégal dans le Sénégal des profondeurs trois ans liggéey ñëw ñu wax ko mu ne candidat ou pas Wade passe ou il ne passe pas on va en, en campagne et on va le battre c'est ce qu'il avait dit il en était convaincu il a pris le temps de le faire donc boo hésiter loolu dafay indi problème ah, te ñun dañu constaté ne que ni hésitation am na pour Aïssata Tall Sall reproche boobu mun nañ ko ko def gis nañu tamit par rapport ak ki nga xam ne mooy professeur Amsatou Sow Sidibé à un moment donné elle a été avec le gouvernement elle est sortie il a certains Sénégalais qui ne comprennent pas ce fait et il faut le leur concéder. une question oh. euh, Madické Niang kañ la jóg. très tard non c'est-à-dire que comment se fait du jamais du bokk jamais. oui non mais man bon oui. mais Aïssata Tall Sall bu fekkente ni nee na même son propre conseil municipal dañuy rejeter seen signature ça pose problème bu professeur Amsatou Sow Sidibé ne signature borom këram sax dañ ko rejeté ça pose problème donc le problème est à chercher dans le système du parrainage. Ah, en tout cas le système n'est pas parfait ça moom c'est évident oui. professeur man comme wàllum politique bi mooy actualité bi c'est vrai mais je pense que ni ñëw nañ ci très amplement ak reportage bi Adjara def man damay dem au-delà mooy sànq li doyen doon wax ni euh, malheureusement au Sénégal dañuy gis ni jigéen ñi du ñu teel a feeñ wala a affirmer seen bopp en tant que bi nga doon wax ba à un ah, certain moment peut-être dû a gisati seen mm. xam ne jigéen war na ko am ak moroomu jigéenam c'est ça man foofu lay gën a accès wu euh, par exemple Adjara déclaré wu comme candidate il faut que Khadija danaan pourquoi elle pourquoi pas moi au lieu que dem mu dem allié wu ak Adjara pour peut-être unir leurs forces ba xëñ na euh, lii li tey Khalifa Sall war a am wala li Karim Wade di am wala li président Macky Sall am fexe ba Adjara bu ko amee man dinaa ci gis na bopp. Mhm. mais dama naan non damay je me bats contre Adjara finalement je me bats contre moi-même. Mhm. est-ce que problème bi du bon forcément c'est problème de société parce que noonu lañ ñu wujje bi ci biir kër gi wujje gi entre doomu baay ak doomu ndey loolu yëpp dafay impacter. est-ce que wujje négatif na positif mais peut-être dafay impacte ci anam bi nga xam ne moom la ñu gisee réew mi. ci wàllu liggéey ak ñu mel. Ajara d'abord les <laughs> femmes d'abord. ça <laughs> concerne euh, comme ni ko Kadia waxee c'est vrai que euh, tey bu ñuy wax femmes yi euh, lu gën a bëri dañuy wax fa la ñuy jëlee koppar wala koom-koom boo xamante ni ci liñ mën a sukkandiku pour amal seen campagne góor ñi defe naa ñu ëpp pexe ci ci wàllu woowu noonu mais bu ñuy wax également di analyser jigéen tey bi ñu ko jëloon jox ko réew wala mm. ci nan lañ koy xalaatalee parce que jigéen xam nañ ni que ni moom mooy gafa kër gi. ñoom mm. ñoom ñooy jenc ñoom ñooy planifier. dégré sa salaire da nga leen jox madame euh, mu géré ah. mais pourquoi ça ces valeurs là euh, pourquoi valeurs yooyu noonu mënuñu ko mënuñu ko euh, gisal ci jigéen ñi parce que gis nañ ni que depuis 1960 il y a eu des hommes que des hommes mais les femmes également euh, je pense que changement bi foofu la war a amee est-ce que tey jotul euh, ñu ne waaw dëgg la sax ni que ni euh, def nañ analyse xool ni que depuis 1960 ba léegi Sénégal fu mu toll fa la toll su gënul sax yées mais ñu daal day wax ni que jigéen ñi tamit am nañ am nañ mais mais mais ñun tamit mun nañ nangu tamit ne am na ay jéego yu par exemple parrainage am na fii tey gis nañ assemblée nationale ni Pape Diop ni ñu ko génnee vice présidence juste pour respecter parrainage quand même loolu c'est à beneen bi tamit parité merci beaucoup mais je voulais dire parité mm-hmm. euh, parité am beneen bi tamit mooy Sénégal am na ñaari premier ministre yoo xam ne ay jigéen lañ tamit. mais ba léegi euh, nekk ñu au sommet ba léegi nekk ñu au sommet quoi est-ce que c'est pas ça réellement prête mm. à ce qu'une femme dirige le Sénégal bien sûr mais Khadija ñun amuñu problème boobu Sénégal ñun fii moom wax na ko léegi ñun Sénégal jigéen ñi ñoom ñooy jiite mm-hmm. de fait suñu kër yi jigéen ñi décidé. mais xam nga ñun ñëpp loolu moom la ñuy dund. Ah ah? kër ak réew. c'est une réalité c'est pas la même chose. mais est c'est-à-dire que le pouvoir des alcools c'est pas loolu non dama doon joxe. dama mais c'est tu as bien comme le couple présidentiel dañ koy bañ a dégg mais ni ñi dañuy faral di wax ni euh, c'est Mariam. qui dirige le pays parce que am na yenn problème yoo xam ne bu amee moom moo koy lijjanti. oui par exemple par exemple mais mais Khadija non dañuy waxante dëgg tey ñun fii 2STV Marème Ndiaye directeur générale. Mm. kan moo si am problème. kenn mm. tey amul entreprise booy liggéeyee wala société nationale boo nekk mu am DG bu jigéen. Mm-hmm. boo am problème ndax mm-hmm. jigéen la ñun Sénégal amuñu problème bu jigéen. ak góor léegi nag affaire suffrage nag. léegi mm-hmm. beneen niveau la. mais bu ñuy wax parité également tey jii man je pense pense que ni euh, yoon jigéen bokkul ci élection deux mille dix neuf yi. du du yoon mais c'est vrai que am na teg nañ ay ay ay fanqal ay jënkal bu xamante ni euh, tey mën nañ wax que ni peut-être amul euh, mën nañ bañ a xalaatee fu fu fu sori hmm. mais je trouve que c'est assez paradoxal que ñu voté parité ci dëkk bi 2019 il y a pas une candidate femme oui mais avant doyen di ñëw professeur man je pense que problème bi ñuy wax nii va au-delà de de la question de parrainage. Hmm. est-ce que ñoom jigéen ñi pare nañ pour ñun Sénégal ñu suivre exemple Libéria hmm. Argentine Brésil ou Croatie. Hmm. est-ce que ñoom pare nañ. su ma nee ñoom su ma nee ñoom est-ce que pare nañ. parce que y a des aujourd'hui des questions sociétales yoo xamante ne ñoom jigéen ñi au moins dañ leen war a gis au devant. ay questions de contraception su ñu xoolee par exemple parité au niveau de l'Assemblée. question problème de fistule. problème de scolarisation des fii wax nañ parité mais au niveau de l'Assemblée nationale tu vois rarement député femmes yi di défendre ces questions là ñu ne ah vraiment kii mu ngi taxaw ci ak ak yelleefu xale yi ndaw yi jigéen ñi donc voilà des questions aujourd'hui yi nga xamante ne ñoom jigéen ñi ñu ngi leen di xaaran ñu indi ci ay réponses yu pertinentes ay réponses yu durables pour au moins après ñu mën a ñëw aspirer à ce que ñu diriger ñun ñu jox dégg nga ñi euh, gaañ wax mooy que comme tu l'as dit Sénégal c'est pas que pare ñu wala pare wuñu pour jigéen mm-hmm. et je pense que pour man d'abord premier jigéen ñu diriger moo gën góor ñi diriger mm-hmm. c'est pas des clichés mm-hmm. soo xoolee les maisons su papa yeeg yaay yi du xeex xale yi di xeex seen biir papa yi di xeex doom yi c'est parce que y la gestion y a le management et président de la République en vérité ce n'est pas un management de compétences c'est savoir reconnaître les compétences les rassembler et les mettre en chantier pour ñu liggéey gagner mm-hmm. amul benn école bu ñu jàngalee ni ñu jàng ñuy nekk président de la République c' est l' intelligence sociale mm-hmm. et intelligence sociale jigéen ñi j'ai la vague impression que ñoo ko ëpp góor ñi donc mën na am et ñu diriger moo gën ci réew parce que dañu tëddee njaaxanjaay et elles ne vont pas mener une course sans fin pour s'enrichir sans limite. bon en tout cas en Argentine moom la présidente là elle est en accusation pour corruption au Brésil c'est la même chose. au Japon. tu vois non Argentine Argentine Argentine ak Brésil moom mu toll la présidente est en l'essentiel les grands détourneurs d'argent dans le monde. Euh, les grands mangeurs d'argent dans le monde. ce sont les hommes parce ce sont les hommes. le détournement et le vol c'est pas l'apanage d'un sexe. loolu moom je suis catégorique. mais il a raison MLK. les hommes les les femmes n'ont pas été placées en situation. pour faire une expérience renouveler ko ba mu dem benn niveau critique. Mhm. ba xam ne elles sont plus prudentes pour ça ensuite góor. mais qui pousse à voler la plupart du temps ñun suñu mënee sàcc nga. du ma sax am seedi naa fusionné un peu mais c'est fini. jigéen soo nekk dee sàcc na parce que jàll na ko dee. Mhm. dañ ko exégé. mais loolu na cliché non cliché la xoolal ñu taxé de voler les femmes qui hmm. poussent à voler waaw xam non weddiwu ma ko. l'incitation au vol mais yeggagul une masse critique. recel recel il faut une évolution ba yegg une masse critique. Hmm. ñu bëgg wax ñu doog a mën a société à balancer. donc pour man jigéen diriger réew mi c'est une bonne chose. Hmm. et am nañu ñoom vision bi mais li ñu amul woon. Hmm. ni am na ñu ay vision et moi je veux je voudrais je veux aimer su femme présenté woon nekk candidate quel que soit mon candidat bi. laay voté même su ma présenté au programme parce que en réalité si elle sait rassembler les gens reconnaître les compétences dina dem. Hmm. les meilleurs ministres c'est pas les ministres qui sont super compétents là. Hmm. ñooñu en général ils confondent même les hommes les femmes et les chiffres. ñi ñi super compétents yooyu ba yegg niveau technique yi dañuy confondre ak ay chiffres mais ku mën am ay compétence wuti leen mettre leen dans de bonnes conditions. pour man mën nañ ko mais. autre chose pour man parrainage bi joué na parce que elle n'était pas du tout préparée ñoom ñëpp à être parrain ou à être parrainé bon pardon et ku ci demoon ci ñoom ci élection aurait recueilli je suis sûr plus de voix que li mu am ci parrainage plus de beaucoup plus de voix waxuma ni ñooy gagné mais beaucoup plus de voix. mais ñoom dernière référence bi en en politique 2012. Mhm. Amsatou Sow Sidibé 5000 voix la am. 5166 waaw xam nga Sonko euh, soo ko jëlee ñaata voix la am léegi. on soupçonne que moom mooy gagné Macky Sall très fortement. ah yow yaa bon non on soupçonne partout des même. mais euh, c'est nga am 5000 ah. tey. suba nga ñëw gën a def mm-hmm. am 1 million de voix. ça dépend de comment tu as fait. quel programme tu as déroulé quel ah comportement tu as eu comment tu séduit l'électorat question loolu la c'est ça maintenant doyen euh, affaire bi nan koy nan nga koy tënkee ban ban dénkaane ban message ngay tënkee mi waaw kay man dénkaane bi may dénkaane mooy ñoom muy ñoom am satu muy ñeneen même euh, l'ancien député Tekki la euh, kii Touré muy ñoom ñëpp même madame Sibi que tu as invité ici ñooñu pour man am nañu capacité boo xam ne suñu defee ancrage social dëgg-dëgg sont capable de remporter les élections parce que sénégalais commencé di xam. Mhm. te comme ni nga ko waxee sénégalais c' est parce que kii góor la moom lay voté. non ñu leen dañ lay xam mbaa mu am ku la dénk kooku. Mhm. en général c' est un pays de moom lay voté. Mhm. Mmh. loolu dafay joué ci vote bi donc pour ma leen dénk di wax mooy ñoom nañu gën a dugg ak population yi gën a impliqué dans les luttes sociales par exemple été même Sonko ki a été. au niveau des luttes ba xam ñoom ñoo gën a combattre ci dëkk bi mooy le secteur informel et pourtant ñoom ñooy nourrir Sénégal ñoom ñooy nourrir le Sénégal l'économie sénégalaise d'ailleurs ah, l'un de ses défauts c'est de ne pas se baser sur ñuy nourrir la majorité mais de baser sur l'extérieur yoo xam ni même su amee croissance cette croissance n'a aucune répercussion sur la majorité des Sénégalais alors informel pas bu ndaw bu ñu def famille yëpp yëg ko kenn ci ñoom naa un programme pour l'informel les jeunes kenn ci ñoom naa un programme d'emploi parce que Sénégal aujourd'hui il faut une capacité de création de ay deux cent mille emplois par an à trois cent mille mhm. sur une période assez longue absorber ñëpp mais en produisant nous-mêmes mais chignon de bébé dañ koy importé de Chine. Mhm. da ay Thaïlande ak ay xaw ma fa. Ah, ay puso euh, ay puso yooyu. alors que on a les capacités de produit mais c'est un peu nos états et ça c'est l'Afrique qui ne mettent pas les moyens qu'il faut je te dis benn dernier. suñu jëloon ñu ni les ressources minières yi ñu am. Mhm. que ñu ni 30 de ces ressources. vont servir à créer des entreprises de production dont les trois quarts ou les quatre cinquièmes produisent des biens le cinquième ça produit des services pour écouler cette production suñu amoon programme boobu ñu def ko am na mën nañ ko def c'est possible dans ce que le Sénégal fait mën nañ ko fi def mais kenn aucun candidat je l'ai encore entendu parler demplois des jeunes d'entrepreneurs d'envergure des femmes on les met dans les petits crédits ñuy dee dans la petite misère parce que ku nekk en émergence pendant 60 ans tu as le temps de mourir parce que bopp génnul alors ce sont ce genre de programme moi-même lancé li may lancé mooy que électeurs yi ñi amul programme pour l'entrepreneur d'envergure des femmes et l'emploi des jeunes il faut qu'ils se méfient de ces gens-là parce que même l'argent collecté mu nekk fii ñu tekk fi te amoo foo ko investir à bon escient c'est un réflexe humain tu vas mettre ça dans euh, loolu euh, am na solo li ñu euh, doyen Daouda Diop tey jàngat bi mu ñu defal Abdou Touré moom dafa yëngu si wàllum réseaux sociaux yi Abdou leeral ñu yow réseaux sociaux yi yan jëflante ngay am ñoom. waaw merci Tunkara damay yëngu ci réseaux sociaux parce que je suis éducateur et que du coup je travaille avec des enfants damay liggéey ak euh, jeunes yi euh, scout à la base mais je suis un militant euh, qui prône pour les droits de l'enfant et autres donc je suis activiste boo xam ne bii tout ce qui est environnement euh, éducation euh, santé droit de l'enfant protection de l'enfant damay yëngatu ci yooyu et du coup tey li ma fi indi mooy que ne euh, depuis trois jours dañoo lancé benn hashtag qui s'appelle sunu débat. hashtag la. hashtag c'est un dièse benn benn dièse la benn sigle la boo xam ne bii bu ñu ko bindee si day ànd ak dièse boole kook lettres yëpp ñu kole ko ñu tuddee ko sunu débat parce que il y une de nos amies bu nekk en Angleterre une jeune étudiante en Sciences Po ku ñuy wax euh, Awa Awa Mbeng moom moo def hashtag bi bind ko envoyé ko président de la République ne ko président comment on va faire pour tenir un débat il faut que ñun ñu tenir un débat ak yow nga bokk ci ak tous tous les candidats à l'élection comme ni ñu koy defee dans les grandes démocraties comme en France comme au Sénégal parce que ñun ñu nekk ci diaspora bi wala ñeneen ak ñeneen il faut que ñun tey mënuñu nekk di suivre peut-être ay meeting ak yooyu mais pourquoi Sénégal mënul avancer ñu toog waxtaan ñun am xel jàng toog suivre leen déglu leen analyser ce que vous dites hashtag mu ko defee automatiquement même pas 30 minutes les gens ont retweeté mu def euh, benn situation bu doy waar xam nga c'était devenu viral tout le monde l'a repris et donc euh, à 23 heures wala minuit euh, tu tutu awa bi nekk na à peu près ay vers 500 et que automatiquement dans les discussions on a interpellé les leaders politiques et plus précisément le président Macky Sall ak candidat yi et donc loolu moo tax tey man ma ñëw fii man je suis pas est que ñoom réagir nañ réagir nañ man je suis pas à la base je suis Quand avec euh, c'est euh, le chargé de la communication présidence Kassé mu njëkk réagir ne moom euh, ça ne nous intéresse pas le président genre débat yi intéressé wu ko parce que ay affaire u xastanteeg saagante lañu fay def ñun gëmuñu loolu nous sommes des intellectuels nous sommes dans ce pays amul benn candidat bu ñu mës a invité à la télé muy toog di saagante nit nous sommes des gens civilisés nañu ñëw toog ñu waxtaan et du coup loolu moo ñu fi indi parce que Euh, certains sont occupés dans d'autres médias ak yooyu instant yi gars yi ñu ngi peaufiner ay stratégie mais aujourd'hui euh, bi kase réagir na pour le lendemain matin Madické Niang moo njëkk réagir pour diir que ne moom day bokk ci débat bi ñu toog une heure de temps après euh, Khalifa d'accord ñu toog Khalifa Sall ñu toog par ci Twitter am ñu toog ba ci yàgg le lendemain pur ne bokk nañ Issa Sall ne moom day day bokk ci débat bi après il y encore je sais pas ab. non Idriss Seck pas encore ah, ñoom seen euh, service comme Sonko Sonko Sonko waaw dama juum Sonko moo njëkk d'accord Sonko moo njëkk d'accord moom moom il est comme il est toujours sur les réseaux sociaux moo njëkk d'accord donc ñun ñëpp d'accord nañu aujourd'hui il nous reste Karim euh, ak euh, Idi ñoom ñett parce que ñoom ba tey waxuñu lu leer seen partisans yi ça tourne en rond waxuñu lu leer mais boo xoolee les débats les jeunes sur les réseaux sociaux actuellement au Sénégal ñoom li ñu bëgg mooy que ne nañ tenir ce débat nañu mm. bàyyi yi ñuy def nii temps yëpp si média yi di saagante di xastante di jiinante sàcc yaa def lii yaa def lale euh, yaa détourné fii kooku ay yeneen affaire dañu intéressé guñu li ñu bëgg mooy que ne bu ñu ñëwee si élection yi ni ñoo ñu toog ñu organiser débat yi ay question yu pertinentes yu ñu leen di posé ku si nekk mën a tontu si nii nga ciy demee boo ñu la joxee réew mi lii ak lii di nga ko def li ba pare aujourd'hui ñun depuis démb créé nañ ay thématiques que ça soit sur l'éducation que ça soit sur la santé sur euh, la situation des femmes et des filles euh, sur l'économie nos ressources mu ngi koy wax sànq ñun on ne produit rien dans ce pays. Hmm. dañuy produire tey suñu pétrole bi est-ce que ñun ñoo ko nar euh, mu nekk produit fini. non daf ñu nar a rey. donc toutes ces questions ça nous intéresse nous parce que nous sommes l'avenir de ce pays te hashtag bi ce sont juste des jeunes. Ah, Awa mi ko lancé elle a juste 21 ans ñu bari foog nañ def nañ ne benn nga di journaliste moo toog quelque elle a juste 21 ans. et que ñeneen ñi si topp si sont des jeunes. initiative citoyenne la boo xam ne ñun aujourd'hui lu tax ma nekk fii parce que juste il y a un groupe boo xam ne ñun on a vu les choses euh, on s'est on on qui le plus actif euh, euh, qui sont plus activés sur la chose se sont vus discuter et on a mis des stratégies actuellement yoo xam ne tey on va rencontrer. les personnes les candidats qui sont qui ont dit que ne ñoom bokk nañ. Mhm. et commencer à travailler. débat bi est-ce que wax ngeen kañ la. débat bi waxuñu kañ la parce que on attend encore il faut que ñeneen ñetti candidats yi wax ñu bokk nañu wala bokkuñu nañu wax seen kii après cela. ñu bokk bañ a bokk da ngeen débat bi am. loolu du si ñun ça dépend de la de la jeunesse des jeunes ñi nga xam ne ñun tey ñoom lañu fi nekkal. de la jeunesse ñoom ils veulent le débat. Ouais. que les ñu bëggul on va faire le débat après les sénégalais vont sunu njëriñ taxu leen fi toog. parce que bëggu leen jàkkaarloog ñun bëggu leen wax ak ñun. Macky d'accord les gens disent que ne am na euh, am na bilan. bilan bi bilan bi d'accord nañ maintenant fan la ñu jëm ak li mu jot a def il faut ñu poser ay question hmm. ça c'est important il faut ñu poser ay euh, questions. moi président Macky Sall naa si tu me le permets président Macky Sall moom moo waroon accepter. du bokk ci débat bi avant ñoom Sonko ñoom Madické ñaañu kenn moom moo waxoon ñu ko bokk ci débat parce que au moins am na fi ab diir boo xam ne toog na ko ci ci réew mi war na toog jàkkaarloog askanam wax li nga xam ne moom mooy vision des choses def na fi diir def na fi benn temps léegi bëgg na laaj joxaat ñu joxaat ko réew ci beneen durée lan la fas yéenee def lan la fan la bëgg a yóbbu réew mi ak yeneen am na ay questions yoo xam ne euh, duñ leen faral di dégg ñoom ñu ko ciy wax donc bëggoon nañ mu toog comme nu mu ko waxee def recensement question pertinente yi ñu ñu ñu laaj leen ko ñu indi ci ay leeral jaaxal pour askan ah, wi euh, euh, voilà man li ma ci bëgg a wax mooy euh, réew mi am na yaakaar parce que bu fekkente ni ndaw ñi bu njëkk ci wàllu politique en tout cas ñoom ñoo doon nekk les bras armés des hommes politiques bu xeex daan am ñoom la ñuy ni jox leen xeer jox leen ah, gànnaay dafa dox de jox leen xaalis bu fekkente ni ndaw yooyu ñoom ñooy woo kilifa yi ci waxtaan mm. vraiment saaba veut dire que y a de l'espoir dans ce pays. Ah, la jeunesse parce que mooy suñu richesse te quand même les jeunes sont, sont euh, les futurs dirigeants de ce pays. Ça, c'est la première remarque que je voudrais euh, euh, faire. La deuxième chose, bi ma bëggoon laaj Abdou mooy est-ce que tey choisir ngeen ban média moom moo war a par exemple bu ñu d'accord ne dañuy def suñu débat jeunes yi bëgg nañu def suñu débat ban chaîne de télévision moom mooy abrité débat bi. bëgg nañ ñu décider non non xaaral rek professeur ñu ñëw parce que tamit débat bi il faut il ñu ñu ñu mën ko transmettre ñu impliqué leen les médias non même médias c'est obligatoirement ñu ko def parce que léegi amatul médias traditionnels mm. la preuve ñun li ñuy wax mi ngi euh, en ce moment sur la plateforme de suñu débat donc bëgg nañu laaj ko ban chaîne la ñu xalaat ne war na mën a def débat benn boobu mooy laaj bu njëkk bi deuxième laaj bi mooy nee na mu am ñu d'accord ak ñu d'accordul débat bi. Euh, dina am ça va se donc bëgg nañu xam aussi comme yéen yéen la ngi commencé répertorier question yi yan thématique la ñu war a mën a toog laaj leen ci dara yéen ci yan anam ngeen xalaat ne war nañ ko mën a def ba nga xamante ne dinañ ci ñun ñëpp dañ ci mën a jot ci ni mu waree. aywa Ibrahima. Euh, initiative bi euh, daf may euh, dama ci am benn lecture mooy que te jeunesse bi dafa dañoo raw politique. Mhm. parce que soo xoolee suñ demee ba di leen di interpeller. Euh, ñu war a ñëw pour ñu débat ci benn mbir ça dire que ñun au moins dañ leen waroon xaar sax ñu ñëw ñu waxtaanee benn affaire euh, deuxième jàngat bi ma ci am professeur moom mooy ñun sant culture de redevabilité dañ ko amul daal redevabilité mooy maanaam koppar yañ la dénk nan nga ko jëfandikoo ak yan anam nga ko jëfandikoo rendre compte rendre ñun daal dañuy bàyyi ba élection présidentielle jot mhm. ñu ne ñu kaay leen voté su élection présidentielle weesoo ñu ne leen toogaat leen ba beneen élection présidentielle pour ñu laaj leen yéen la mooy seen avis ak kan ngeen di voter lu tax entre temps cinq ans sept nu ñu ñëw ñu laaj jeunesse bi ñu rendre ñu compte milliards yi fan lañ ko dugal ak xaalis beneen bi fan lañ ko def. ah loolu moom euh, bi ma ci am c'est justement euh, gis nañ ni que ni euh, bu campagne bi di présidentielle télé yi dañuy jaxasoo kenn du xam fooy seetaan kenn du xam ban programme ngay teg si télé yi nga xamante ni sax fa lañ bëgg dem di xool candidat yi ñu war lañ mën a invité comme ça se fait dans les autres pays duñ ko am donc man je pense que c'est juste benn alerte la pour jeunesse bi alerte wala message lañ envoyé ñi nga xamante ni ñoom ñooy gérer suñu média yi je pense que liggéey boobu su amoon euh, suñu débat du du exister. aywa euh, léegi euh, xaaral tuuti doyen kii dafa laaj ni naa dafa laaj au delà de internet beek yooyu tey débat boobu bu doon am fan lay amee. xam nga Tunkar dama leen wax avec sincérité il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas bëgguñu débat bi am. ah aujourd'hui depuis hashtag bi génn. Mhm. kan moo ñu interpellé. l'international RFI Jeune Afrique. après il y a eu Dakar Actu ak yeneen ak ñeneen ak ñeneen. mais fii mun nañ ko fi def. mais xaar ma wax la non dafa am fu ma jëm fu ma jëm am na feneen fu ñu invité depuis 48 heures éléments yi génnul ils l'ont bloqué. Hmm. on pense qu'il y des pressions quelque part. ah non fii fii maintenant maintenant non attends xaaral ma expliquer mu leer. Euh, depuis démb waa 2S si seen page ils ont dit ñoom ils sont prêts. à accueillir le débat. cool c'est bon maintenant yeneen t yi ku mu intéressé on peut on peut euh, on peut se on peut en discuter et voir au niveau national comment on va faire pour linker télé rajo def euh, euh, euh, retransmission bu normal rajo yeeg ñëpp jël ko même sur les chaînes YouTube yi nekk si internet beeg yooyu yéen xam ak Sénégal seen système yooyu yéen ko xam ñoom nekk la ñuy xool ba Sénégal yëpp jot ci mais aussi que langue langue nationale da siy def bokk parce que benn partie bi ce sera en français benn bi en wolof. Ah, mais ñoom dañu dañuy def lu am solo nag. mooy vraiment wane ne que ndaw ñi. mënatuñu toog noonu banque suñuy loxo réew mi di dox te ñun duñ si bokk. te ñi nga xam ne dañuy jiite ñooñu ñoom dañu am warugal parce que li Ibrahima doon wax léegi warugal la yow tey bu ñu la dénkee benn jamono nga ñëw ne eh, li ngeen ma dénkoon nag affaire yi mi ngi euh, toll fii mais euh, li naa wax tamit dafa am solo lool mooy euh, tey jii ndaw ñi ñoom vraiment dañu fippu ne il faut ñu te Sénégal. ñun ñooy le pays le plus jeune au monde moyenne d'âge 18 ans benn réew am ko ci àdduna bi 19 ans pour jigéen ñi 17 ans pour góor ñi euh, donc ndaw ñooñu il faut nga jëflante ak ñoom. la population est jeune. oui 60 pour cent la population. Euh, oui ëpp 60 pour cent moins de. voilà moins de 18 ans. Hmm. loolu la léegi euh, ñun. moins de 35 ans xam nga jeunes ans. Hmm. dépasse les 70 pour cent de la population. absolument soo ci yokkee les femmes donc des jeunes fii aussi. Ouais. ça dépasse 80 pour cent de la population sénégalaise. Oui, donc les femmes et les jeunes ñoo dominer la absolument. donc on ne peut pas faire de politique. sans s'adresser à. Ah, euh, delloo njukkal Awa Mbengue euh, ndeysaan xale boo mhm. am jom parce que tey nga am ñaar fukki at ak benn yi amal la solo ba yow ngay euh, woote si lii dafa am solo dama gis Khadija tey si suba rek dañ ma yónnee. benn euh, euh, benn bataaxal buy wax premier ministre wu Autriche ki fi ne nii bi ñu koy fal 31 ans la xëy leen ñun bu ñu amee 31 ans fan la ñuy nekk ñun tey tu vois donc mais mais jeunes yi ñoom Awa Mbeng day wane ni que euh, ñun Afrique ñoom ñoom Khadija ñiy toog ñoom Ajara day wane ni que fii léegi 31 ans Khadija mun ngeen nekk premier ministre loolu euh, mais du du guleet parce que président Abdou juf du mu fi nekk premier ministre euh, gouverneur vingt ans premier ministre 35 ans président de la République 45 ans bon lan ngay jeexale Abdou ture Tounkara lu may jeexale mooy que ne président Macky Sall mu Idrissa Seck Karim Wade. bu fekkee ne réew mi ñor na leen dëgg nit ñi ñëw débattre. moom mooy Karim Wade newu fii ah. garaaw moom parrainage bi bu résultat yi génnee parce que il paraît que conseil conseil constitutionnel dina dina def euh, dernier papier am officiellement ne ñi ñooy candidats yi. Mm-hmm. ñu ngi leen xaar nous en déjà on a commencé à travailler. Mm-hmm. am na ay draft yu ñu commencé teg yoo xam ne yi chaque candidat dañ la gis dina am lu ñuy wax ak yow. après cela médias yi tamit nous sommes open ñu ngi leen di xaar maintenant ñooñu ñett ñoo nga xam ne nee nañu waxuñu lu leer nañ ñu wax lu leer. Euh, xam naa dina laaj euh, liggéey bu am solo. liggéey bu am solo parce que comme jeunes yi du ñu ay professionnels du ñu ay euh, ay journalistes ak yooyu. c'est vrai di ngeen soxla encadrement boo xam ne ñoom MLK ñi ñoom mm. Khadija. fi waaw mën nañ si jàpp fii moom on est opposant non seulement mën nañ ko fi def mais aussi mën nañ si jàpp n'est-ce pas les waaw Sénégal moom am na journalistes yu xarañ. yu pertinent yu correct si plateau. bon ñun d'office on vous on vous donne ak MLK d'office. benn benn aussi benn affaire dama leen koy ñaan Nina Khadija mhm. ak euh, Ajara sànq dañoo wax dañ si affaire jigéen ñi et que démb ak barki démb bi may gis sur Twitter on n'a pas beaucoup parlé de la condition des femmes mhm. soxna yi dama bëgg ngeen fekk si ñu sujet boobu da si war a wax waaw dégg nga yéen pour l'instant yéen suñuy ambassadeur si dalloo njukkal activé leen ah, Abdou Touré euh, vraiment euh, xale yu am jom vraiment taxaw ne ñun fii dañ ko yàgg wax ñun gëmuñu fal fàtte. gëmuñu ko da ngay fal li nga euh, chaque jour dama koy wax ajara ay association dañuy ñëw si émission bi bokk si benn koñ di kaas nangam sangam man leen mais yéen seen conseil municipal mm-hmm. est-ce que yéen xam ngeen ni loi daf leen permettre yéen ngeen mën laaj leen mm-hmm. les budgets les comptes mm-hmm. les délibérés du conseil municipal est-ce que di ngeen laaj loolu kenn du ko laaj samay étudiant fii université Ndakaaru bac plus cinq euh, master ñoo ñëpp kenn su koo laaj man leen xëy dem leen uti ko boole ku ko ku ko amul ma may la zéro ñoom ñëpp man mii ma dem di ko uti sama maire lànk ma porté ko plainte sous préfecture sous préfet bi woon ni ko xëy jox ko ko donc parce que loolu ñun suñu warugal la mais ñun Sénégal dañuy fal fàtte te loolu dafa war a jeex <coughs> xaar ne la ñuy def léegi ak euh, Karajo balaa ñuy dugal suñu yeneen ñaari gan tey ci tuuti la. mais tout <coughs> <coughs> il faut mu bokk ci ñu Sénégal bàyyi fal fàtte. ah loolu moom dama. c'est un mot d'ordre qui doit être diffusé largement au euh, euh, doyen Daouda Diop lu am solo am sénégalais surtout ndaw ñi nañu bàyyi di fal fàtte. moo waxaat ko dañu bàyyi di falfàtte euh, Karajo may ñu benn xaaral ñu dugal suñu ñaari gan ñu mujj tey ci tutela ci réew yu mel ni France wala sax États-Unis ñu jàpp ni démocratie am na fa lool doole am na ay mbir yoo xamante ni dañu ko fay nemmeeku bu ñu jubal ci ay élection muy fexe nag ba yàq deru ñenn ci candidat yi mu nekk nag mbir moo xamante ni dañu koy gis tamit fii nii ci senegal ndax kat dañuy gis ay candidat yoo xamante ni day am ay mbir yu ñu leen tuumaal mu waral nag balaaj samp ngir xam lan moo waral yooyu la mbir. li nga waral mooy eh, da ngay yaakaar ni rek euh, waaye bu ma ko euh, waxalee yenn yi muy dëgg wala muy ñàkk dëgg dina euh, kiyam dana wàññeeku jam dana wàññeeku ba mu mën ko raw loolu moom euh, bi ñuy tàmbali politique si di ñu seetlu 1920 ba léegi Blaise Diagne Carpot ni connu Lamine Gueye aussi et Senghor ku lu nekk lañ si dégg une pétrole ko un taal ak Macky Sall moom si boppam 1900 2011 euh, lu nekk lañ ko ko waxaloon bi ñu demee ba yaakaar ni xëy na dana mën a bokk si cëppaandaw ga ñu woo kenn mu génnewaat affaire Taïwan set milliards de Taïwan. mu nekk xeetu jëfin yoo xamante ni daanaka téeméeri at a ngi nii ñu koy amal fii nii ci Sénégal waaye nag taxul ñu koy def di ci jëlee ndam. wax ji daal mooy boo yaakaaree ni diw moo la ëpp daraja si yàlla nga ni bu moo ko sosalee eh, yàlla dana wàññi darajaam da ngay nax sa bopp Macky Sall kenn yaakaar ko woon 2012 te yàlla def na mu jàll. analyste bi doon it sociologue moom nag lu mu jàpp ni noonee la politicien yi war a doxalee mooy xeex ci terrain bi. ku nekk daal na dem wutali sa bopp. delloo njukkal waa régie Babacar Karajo Diagne tey euh, moom moo fi nekk euh, sunu ñaari gan euh, yi ñuy dugal léegi léegi léegi ñu dëkk Ibrahima yow tey bu ñuy wax wàllum wàllum genre góor ñi ak jigéen ñi tey jigéen ñi ñu bokk ci élection yi mënuñu fal président en tout présidente. en tout cas deux mille vingt quatre deux mille dix neuf bi Euh, est-ce que yow am nga njort bu rafet ne Sénégal amaan deux mille vingt quatre loolu jàppandi. Euh, balaa ñoom nii naa di may door <laughs> ah doo leen ma dóor ah professeur. professeur man euh, en fait sànq sama question bi dama koy indiwaat rek est-ce que ñoom pare nañ parce que soo xoolee laata ñoo ñëw sax ci ñi nga xamante ne war nañ leen fal comme ay professeur Amsatou Sow wala Aïssata Tall Sall est-ce que xale yi nga xamante ne tey par exemple ñu ngi ci euh, daara yu ndaw yi mooy élémentaire ñu ngi ci condition yi parce que tey soo xoolee y a des yoo xamante par exemple les femmes n'en parlent pas ou bien elles le vivent sans pour autant ñu waxtaan si indi ci ay saafara gis mbaax yenn saay day euh, wàccee li nga xamante ne moo di taux de scolarisation des filles mais doo dégg sax nit ñi di koy waxtaani da ngay gis benn xale bu jigéen boo xam day gis mbaaxam nekk ci ay jafe-jafe war a jóge école dem ba kër ga donc période boobu noonu nga gis du mën a suivre correctement ah, euh, cours yi di kii euh, Hélène Ndiaye vraiment mu ngi siy bay waar solo ah. donc loolu loolu dafa war a nekk ay questions yi nga xamante ne ñoom dañ si dañ si dañ si war a taxaw beneen mbir bi nga xamante ne aussi tamit euh, mën nañ ko si wax mooy ñoom femmes yi nee nañ ci côté parti politique yi son les plus fidèles militants. dañ koy wax tout le temps. Mhm. est-ce que ñoom jotul tey comme ni ko sànq góor gi waxee jotul ñu coaliser gëm ñoom seen moroomu femme parce que aussi problème bi foofu la nekk est-ce que tey Khadija war na mën a nangu nii naa jiite ko su fekkee ni côté homme la y a pas de souci yaa ngi ko doon wax sànq madame Ndiaye moo ñuy jiite fii nii ci 2S mais est-ce que ñoom femmes yi entre elles pare nañ pour kenn jiite leen au moins ñu jox ko benn confiance benn gëdd bi pour mën a permettre par exemple Mimi Touré était première ministre amul woon problème. Euh, bi Mame Madior Boye nekkee premier ministre amul problème jigéen ñi yor tey département ministériel Sénégal amul benn problème tey boo demee euh, fële ministère euh, de l'élevage. Aïssata Amin sama yaay Aminata Mbengue Ndiaye. Mhm. da ko da ko yor yorin boo xam ne amul kenn kuy contesté ne parce que jigéen la mais Khadija question bi Ibrahima posé. Euh, mooy est-ce que du jigéen ñi ñoom mujje bu négatif bi moom moo leen di gàllankoor seen biir te yow sàngalaal ko. waaye mooy ci wàllum société bi ma doon wax sànk rek on en revient encore à la société parce que Ibrahima Baldé mi ngi wax ni est-ce que jigéen ñi pare nañ fësal seen bopp taxaw est-ce qu'elles sont am na benn boroom xam-xam bu mu déggoon ne en fait frein li tax jigéen ñi du du ñuy nekk ci kanam moom mooy à chaque fois elles se comme étant le sexe faible. bés bu ñu bàyyee jàppee seen bopp comme étant le sexe faible rek peut-être mbir yi dina dina dina mën a jëm kanam donc il est grand temps qu'on arrête ces préjugés là wala guillemets yi nga xam ne dañ koy faral di def fu ñu nekk rek taxaw fu euh, MLK taxawee wala fu Ibrahima Balde taxawee ñu ñu taxawee fa aussi di intéressé wu ci yenn causes yi parce que quand même c'est dommage que euh, euh, ñu nekk ci assemblée am ay jigéen yenn question yi nga xam ne c'est relatif à la petite enfance surtout ci jigéen ñi mm-hmm. wala lu jëm ci wàllum mbaax duñ ko waxtaanee wala lu jëm ci wàllum sexualité mm-hmm. mais encore la société qui revient parce que Sénégal am na lu ñu mooñaalee mooy sutura xam nga am na yenn yoo xam ne duñ ko faral wala tàmmuñu ko di ko waxtaanee sur la place publique et na code yoo xam ne il dem dañu ko mooñaale peut-être pour casser ces codes là ça va prendre du temps ça va pas ça va pas se faire. mais on vous attend à la Khadija yéen on vous entend pas parler de ça yéen doo leen si wax par exemple. bien sûr on a déjà travaillé sur un projet qui s'appelle Weekend. c'est c'est c'est un plateforme benn plateforme boo xamante ni euh, day tax femmes yi ñëw euh, wax visiblement ñoom lan lañ nekk déjà pour nga bokk il faut que nga nekk femme boo xamante ni yaa ngi yëngul ci dara boo yëngul ci dara aussi nga fësal ci lan ngay yëngu di xeex ci ay question du genre égalité des sexes ak lépp lu jëm ci wàllum viol ak ay euh, lu mu tudd ci mutilation lu ni mel donc ñun ñu ngi formé mais comme nu ko Kaja waxee femmes yi du ñoom ñoom ñooy ñëw la plupart du temps c'est les hommes même qui sont là qui viennent qui disent waaw ñun bëgg nañ leen euh, soutenir donc euh, dans ces genres de combat là c'est vrai d'être une femme et de parler mais souvent les femmes fuient euh, toujours réalité aussi waaw mais loolu bu ñu koy def parce que attention xam ngeen benn affaire de femme jigéen ñi ñooy gën a gaaw a responsable góor ñi mm. de tout temps boo jëlee société yëpp ñun par exemple suñu société yi suñu maam yi 12 ans 13 ans 14 ans ñu may leen jëkkër. Mm-hmm. bëri suñu ñoom yaay yi ñoom 19 ans amoon nañ amoon amoon taawlu woon. mais xale bu am xale bu góor bu am 14 ans ku koy may jabar. kenn donc xale bu jigéen bi ñaari góor a jigéen bu ñu juddoo ku jigéen ki mooy njëkk responsable. donc du affaire problème mu responsabilité beneen mooy ñun suñu société amuñu problème mu góor ak jigéen ñun fii. jigéen ñi ñoom ñooy commandé société bi en réalité ñun suñu kër yi jigéen ñee décidé. Mm-hmm. en tout yow peut-être borom kër gi benn décision ngay jël ci anne bi de boo moytu te encore décision boobu dañ na ci poussé mm-hmm. dañ na ci bëma sax pour nga jël ko donc bi ngeen di wax ajara affaire bi neexul de. Mm-hmm. mais est-ce que implication jigéen ñi. waaw c'est mat na. man ci ci fi ma bëgg ñëwee rek bokk na ci. Euh, peut-être jigéen ñi am nañ ay défauts comme nu góor yi amee ay défauts ah, mën nañ ko wax parce que jigéen ñi gis nañ ni que ni euh, bu ñu leen dénkee souvent euh, surtout xew yi sax la ñuy wax que ni jigéen dañu mën a yàq def naa loolu bokk na ci li tax euh, nit ñi duñ leen soutenir bu baax dina ak boo leen fi andee tamit dañ lay sonal ak ay greffage ak di la donc vision bu péjorative bon du ma wax péjorative mais. li ñu dafay lecture jigéen ci ci société bi moo njëkk loolu moo njëkk sonn loolu jigéen yi donc du mais ajara ah, ah, yooyu tam c'est des faits loolu loolu lu ñu mënul mënuñu ko jindi c'est ça mënul wedd euh, première dame euh, Viviane Wade euh, da ko doon kaas saa su ne ñu jigéen ñi jàmbaar ngeen gis nañ leen heure yi ngeen di yeewu ni ngeen kii mais bàyyi leen loo leen liggéey dajale ko taal ko benn fan toogaat MLK voilà man euh, am na foo xam ne sànq wax nga ko ànd naa ci ak yow 100 pour cent parce que en fait débat wu diggante góor ak jigéen tubaab moo fii fi indi. ah ñun amuñu yooyu parce que euh, ñun euh, jamono ji nga xam ne tubaab bi da doon maltraité jigéen ñun dañu respecté woon jigéen. te dañu amoon ay jigéen yoo xam ne ay leader la ñu woon. Ah, mën nañ ci lim Ndate Yàlla. Yacine Boubou Aline Sitoé Diatta ñooñu ay jigéen la ñu woon mais ay jigéen yu jiite woon la te ay jigéen yu mënoon góor la ñu. Mm-hmm. débat diggante góor ak jigéen égalité de sexe loolu ñun léegi la ko xam. te tubaab la yëf tubaab la parce que euh, tubaab yu jigéen yi France mi nga xam ne mooy suñu modèle en tout cas ci doxalin euh, réew. bi jigéen ñi commencé voté kañ la c' est en 1940. su ma suma ma juumulee kon euh, su ma ci date bi. 45 45 donc c' est récent. te ñun booba ñun depuis très longtemps. Ah, jigéen ñi elles étaient déjà responsables. et on avait des femmes reines. ay jigéen yoo xam ne ay ren la ñu woon dañu amoon ndogal comme ni góor ñi amee ndogal. Mm-hmm. leneen li mooy cest à souvent li ñuy associer lislaam ak euh, religion yi dañuy tooñ religion yi mais amul benn religion bu relégué jigéen au second plan en tout cas du l'islam mm-hmm. parce que l'islam ni mu responsabiliser góor noonu la responsabiliser jigéen. Mm-hmm. boo jàngee suuratul ahzab trent cinq yàlla fu mu tuddee góor ne góor yu jub yi. jigéen yu jub yi góor yu dëggu yi jigéen yu dëggu yi mm, mm, mm. et cetera et cetera yàlla dig na leen payoor gu mag ak njëggal donc pour dire tout simplement que c'est des ay idée la yoo xam ne dañ ko importer indi ñu imposer ñu pour wan ñu ne ñun dañu soofantal jigéen wala dañu oyofal jigéen or que non ñun euh, suñu société moom jigéen ñooy décidé ñun moom euh, <laughs> Nina Penda euh, <laughs> c'est très intéressant li ñuy wax mais aussi appuyer l'argumentaire benn partie argumentaire MLK en disant que ñun suñu société boo xoolee l'aventure ambiguë de euh, Cheikh Hamidou Kane euh, bu nga gis euh, rôle bi nga xam ne moom la la grande royale di jouer mm-hmm. c'est, c'est extraordinaire ouais. donc du coup mënuñu wax ne ñun suñu société mm. dafa am fu ñu teg teg jigéen ñi mais bu ñu nee jamono day dox ñun ñu dugg ci modernité. Mhm. am na loo xam ne amul woon suñu société moo ci greffé wu. Mhm. donc bu ci greffé woo ñu ne ñun dañu bëgg modernité il faut que aussi dañu dem ba nga xamante ne jigéen ñi elles se sont senties lésées elles se sont senties euh, agressées sont violentées xam nga boo liiree l'aventure ambiguë da lay leer ni yow. lii xew jamono jii nga xamante ne góor dina mettital jigéen dina ko def yéen yi xalaatoo ko woon ci époque boobu li nga xam ne moom la MLK di wax ci suñu histoire boo gisee li les femmes de Nder def mhm. xalaatoo ni di nga gis góor boo xam ne dina am nu muy nu muy nu mu taxawee mhm. kanamu jigéen mhm. mais bu société bi évolué am yoo xamante ne dugg na ñu jël li li jóge ci biti greffé ko ci suñu société war nañu xoolaat nan la ñuy def pour réguler waat. Hmm. nan la def pour réguler waat est-ce que dañuy dellu ci li ñu doon wax keroog mën nit ñi dañu dañu leen ñu wax la charte de Kourkan-Fouga. Hmm. est-ce que dañuy dellu ci ñun lu ñu moomoon tibb ci loolu indi pour defaraat suñu société. Hmm. wala dañuy jël seulement professeur. lépp li nga xamante ne moom la ñu tubaab bi indil ne ñu lii kat bu ngeen ci toppee mën ngeen am lii ak lii ak lële mais gis nañ ni tey am na gàllankoor yoo xam ne mi ngi am ci évolution jigéen lii euh, Balde wax. ci li nga xamante ne boo duggee ci biir réew mi Hélène di ci bay waaram ñeneen war ci bay bay seen waar mm-hmm. par rapport ak xale yu jigéen yi bu ñu gisee maax du ñu mën a dem école dañu war a dépasser loolu professeur mm-hmm. Mm-hmm. dañu war a dépasser aussi le fait que tey nga dugal sa doom ba mu dem ba am entrée en sixième nga nag xale bi day toog ci kër gi jàppale yaayam mu liggéey parce que mënatul continuer njàng mi te seetlu nañu tey ci njàng mi ci Sénégal boo seetee ci pourcentage yi xale yu jigéen yi résultat yi ñuy def moo gën a baax ñoo jiitu dans tous les domaines xale yu góor yi ils viennent derrière. bon oui Balde mi nga xam ne moom mooy toppatoo éducation. oui mais non oui mais ah. xam nga ci lu leer. donc du ma si bàyyi sax nga ci hésité parce que yow résultat yi dañu leer. meilleur élève du Sénégal daaw gis nañ concours général bi waaw maa ngi ñëw kay jaari sow. avant loolu maam jaara maa maam jaara Mbàkke donc professeur firnde bi mi ngi noonu. léegi lu ñu war a def nag pour gën leen yëkkati ñu dem mais politique bi li ci nekk mooy mais je pense que politique bi waruñu mettre les femmes contre les femmes. Mhm. ce qu'on doit dire c'est que ce sont des femmes qui demandent le suffrage de tous les Sénégalais. Mhm. hommes et femmes réunis ni may wuteeg suffrage yu jigéen ñi noonu laa war def. wut suffrage suffrage yu ñi. te loolu bu ñu duggee ci domaine boobu rek def ko yëfi société dina mën a dem. loolu daal professeur gëm naa ne bu ñu ko defee dina sotti. et puis dire également que tey fii nu toll ci li nga xam ne li jëm mooy élection yi. la gis nañu depuis 2012 li am Sénégal la plateforme des femmes yi ñuy teg di def ay jéego ci li nga xamante ne mooy ñu am des élections yoo xamante ne ce sont des élections apaisées. Mm-hmm. nit ñi dem voté ci jàmm ñëw ñu génnee résultat ku ne dellu ca la nga nekkoon ti loolu la ñuy woote. et on espère que ñun candidats yi nga xam ne ñoom la ñu nar a jàkkaar lool dinañ ñu sàmmal sécurité réew mi sàmmal ñu sécurité njaboot gi parce que njaboot gi ñun ñëpp ñoo ko seq moom ko mu nekk loo xamante ne moomeelu réew mi la réew mi duñ ko pàccoo dañ ko war a pencoo te ci pencoo boobu nag dañuy ñaan ñëpp ñoom ñu xam ne le Sénégal rek moo jar ñun ñëpp ñu xar suñu tànk tubéy ne dañ ci def lu war parce qu'on le doit aux générations futures. ah mais euh, Nina xam nga euh, MLK finalement moo ko doon wax ne que léeg-léeg euh, yi population yi dañ leen raw. 2012 ñun gis nañ ko fii. ñii di coow fii ñii di taal ay pneu fii kii mais heure vote bu mu jotee lu gaañ def. Mhm. Sénégal yi dañ ko sang ba sot ñëw taxaw rang si civilisé. Mhm. ñëw voté après ku nekk dem toog sa kër. donc alhamdulilah si si fànn woowu moom gis nañ ni que doomi Sénégal ñoom seen. seen xel ñor na bu baax ba du ñu nangu mukk euh, maanaam violence yeeg yooyu euh, euh, tàkk fii mais si affaire góor ñeeg jigéen ñi je que c'est important ñu dellu si suñu xel ne que ñun ñun suñu réew ñun Sénégal amuñu problème góor ak jigéen mm-hmm. loolu amul fii mm-hmm. dafa am ay xalaat yu bees ay xel yu bees yu jógee si réew tubaab yi ñu wax ay féminisme ay mm-hmm. nangam sàngam ñoom ñoo amoon problème yooyu seen biir réew ñoom. ñun ñu noot jigéen ñi. Mhm. mais ñun suñu réew sa yaay da nga koo mës a fonk. sa jigéen ku ko laal nga jóg taxaw nga jóg taxaw sa tante ñun xamuñu tante yaay lañ xam sax tu vois sa bàjjan da nga koy jox euh, mhm. wàccuwaayam ba pare ñun amuñu problème abadan ngay liggéey jigéen jox ko àqam jox ko cëram te bu buñu nee diw sa jigéen la mooy yow mm. da nga ko ameel protection mm. da nga ko ameel aar danga ko ameel njukkal danga ko mm. ameel teranga donc ñun te suñu kër yi franchement borom kër yëpp xam nañ jigéen ñee décidé si kër yi de ñun ñi doo doo décidé doo tekki woo dara jigéen ñee décidé tu vois donc ñun ah, non ñun suñu tekki moom tekki bu ñàkk solo rek mais jigéen ñi ñoom ñooy décidé non ñun suñu kër yi moom franchement non dinaa xam nga boo xëyee dem jigéen ñooy gérer kër yi ñoo ñooy gérer kër yi te ki ki di gestion di décision donc ce sont les femmes qui décident te yow sa bopp xam nga bu baax ni am na décision yoo xam ne yow sa jabar bu la xoolee xolaat la nga nga nga bàyyi si suuf <laughs> nga nga régler rapidement le plus <laughs> tu vois donc euh, c'est important de dire que Khadija dëgg la jigéen ñi décidé. d'accord naa. Ah, waaye macha allah <laughs> elle décide. c'est d'accord am non d'accord bu non elle décide débat bi mais bon bu ñu fi nekkoon ba suba aussi on a d'autres arguments à donner. elle décide elle décide <laughs> ah, Khadija. dañuy décider. voilà président. non dañuy laaj <laughs> décider donc ñun euh, ça c'est important de dire que ñun suñu réew yi encore une fois ñun amuñu problème ba léegi modernité bi euh, ni naa penda benn njariñ bu modernité am mooy ñun ñii ne ñun moderne lañ ñun duñu xaajale suñu doom yu góor ak suñu doom yu jigéen. ñun du ñu ne suñu doom bu jigéen du dem jàngi. Mm-hmm. ñun du ñu ne suñu doom bu jigéen CM2 nga génn école. Mm-hmm. ñun ñun du ñu def loolu. Mm-hmm. donc alhamdulilah ñun problème boobu euh, modernité peut-être indil nañu euh, njariñ loolu. donc euh, si wàllum élection yi vraiment appelu Nina bi woote Nina bi man vraiment dama koy gën a dëggal parce que jàmm gën. waaw lu jàmm fu jàmm amul moom dañuy delloo njukkal tey. mbooleemu acteur politique yi nga xam ne yëpp dañu taxaw ne ñoom jàmm la ñuy dox bon euh, wàllu dàkkasante bi xasante bi euh, sotte xëppante acide bi yooyu njiit yi ñu ngi leen di xaar ñu wan ñu yoonu jàmm ñoom njiit yi te jàmm nag xam nga ni naa fan lay tàmbalee si kàddu waaw mhm. si kàddu lay commencé bés bés boo commencé di xas ajara mhm. léegi jàmm takk seen diggante mais bés boo commencé bés bu yow boo amee ajara ay kàddu yu neex kàddu yu lewet léegi nga gis mu delloo la loolu waaw donc euh, ñi jiite ñu ngi leen di woo si jàmm mm-hmm. ñoom nañ ko tàmmali si di wax jàmm nañ bàyyi xasante bi bàyyi euh, euh, tamante dëmm bi bàyyi sosolante bi ah fake news yi ah sosolante bi yooyu yëpp vraiment du du maanaam du intérêt Sénégal intérêt Sénégal nekkul si loolu te su fekkee nag Sénégal mu ñu tax a jóg vraiment nañu bay waaru jàmm te jàmm moom. Euh, wa quulu linnaasi husnan la la alquran wax dee leen wax nit ñi. jàmm yiw mm-hmm. yiw boobu wax yiw boobu moom mooy indi jàmm. Mm-hmm. te ñun xam nga yow Khadija yow boo nekkee fii Ajara Ibrahima yow nga wax sa benn wax bu ñaaw fii peut-être mun na yem fii. Mm-hmm. mais imaginel tey bu ko président waxee. Idrissa sekk wax ko Sonko wax ko Madické ñaa wax ko xoolal portée bi muy am. doon donc ñi qualifié. pour euh, dem élection ni naa ñoo ñoo war a dox jàmm. Ah, ah, il faut ñu def ko te ñoom seen dox jàmm jooju mi ngi tàmbale surtout si di wax jàmm bàyyi xasante bàyyi axante nañu nañu nañ ñu gën a yéekati ñun sénégalais jox ñu beneen niveau si wàllum. proposition yi nga xam ne moom mooy defar réew mi ñu ñu focaliser si yooyu que di bañ focaliser si ay nit focaliser si moom tubayam bi dafa gàtt moom euh, karawam bi peñewu ko moom gis nañ ko démb mu mu dem làmb ja suñu yoon newu ci. Mm-hmm. Eh, professeur bu ma seetee nga baal ma euh, MLK li ñu doon wax ne boo gisee li positif ci Balde ci Ajara ak ci Hadija ak ci MLK. Thank you